bi def ne ci rek comme d'habitude rek ñu ci daan nekk rek parce que moom vraiment moom du gan ci ñun yàgg nañ cee nekk muy sant yàlla bu baax di ci ne ci événement bi waaw xaw na ci feeñ tuuti moom moom xëy na daan na gën a kiyee nii quoi feeñ na ci fépp côté clientèle bi ak ambiance marché bi yëpp feeñ na ci moom vraiment non des na moom vraiment moom daan na gën a yëngoon nii quoi mais vraiment mais sante yàlla rek ñu ngi ñaw quoi vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax moom waaw xaw naa kii moom xaw na cee feeñ quoi ak corona bi nii moom xëy na nit ñi moom xaw nañu teggil teggil teggil tuuti quoi waaw mom am na client yu yëglu bu baax ñu ngi ñëw moom vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax moom client yaa ñëw mais corona bi moom xëy na na ci am kii tuuti quoi am na ci am tuuti impact quoi mais sant yàlla rek quoi vraiment tan eh, day ñaw goor yi ñu koy ñaw ñaw jigéen yi yi xew ci fiñ toll ni yépp la ñuy ñaw fiñ toll nii góor góor ak jigéen yépp lañuy ñawal vraiment ñu ñawal góor ñu ñawal jigéen yi xaas bi day moom sant yàlla rek moom vraiment ñu ngi sa ñu ngi suturlu moom vraiment mais comme corona bi moom xëy na moom comme ni ko ñëpp kiyee rek def na ci kii tuuti quoi mais vraiment ñu ngi liggéey daal ñu ngi sant yàlla bu baax moom waaw ñu ne ñëw moom mais ak corona bi moom feeñ na ci moom daan na tabaski daan na gën a ambiance nii quoi vraiment mais xëy ci kanam tuuti moom clients yi moom dañoo yéex a jot mais dinañ ñëw dinañ ñëw. ñu rek comme ni ñu ko doon waajalee ñu di xaar clients yi ñu ñëw ñu ñawal leen liñ bëgg rek. waaw ankay am na différence parce que événement bi daan na gën a yëngatu ci nii clients yi daan nañu gën a ñëw heure bi daan na fekk clients yi ñëw ba presque tëyeer yi dañuy baare. mais fi mu nekk amagul ñu ngi xaar ba tey sa client yi dañ lay woo rek naan la bàyyil ma palaas bàyyil ma place ñu ci bëri ñëwaguñ ah feebar bi rek feebar bi moom daal laal ñëpp laal nañu ñun téer yi bu baax sax laal client yi tamit waaw bu baax fii moom dañuy ñëw ñëw góor ñëw ñëw jigéen tabaski presque jasneer yi la nit ñi jënd mbasin riis di ko ñëw ay taybaas rob moo ëpp li ñuy ñaw waaw ak marinière préparation bu bu kémané nak bu kémané ndax fièvre bi ku ne xamna na jaar na fi ba tax na mbir yu béré béré béré dafa tàggateem bi dañuy takal rek di ci débrouiller nak wayé kémané na dal kémané na lol mom lol lol lol sax del fini ni del li des ci tabaski bi fini ni client yu bëri ñëwuñu waaw lol moy suñu problème fini ni ah waaw ñaaw rafet njort rek dañuy rafet njort rek rafet njort rek ñaan yalla client yi ñew bañ mëna am lu ci ci luñ mën a si empêche am nañu empêchement bref ganda ma am empêchement sax parce que dimanche bi fekké na dañuy tejj nga waron ci mëna takalé as new ñu tejj ko kay xam nga day gëna am day gëna indi problème fofu wa lool moy problème bi. si si si parce que même d'ici demb ak euh, barki demb ak tay ji sax fini ay coupure coupure yu sew sewaan yoy waaw. non suñu bo xana japp rek japp rek tay bàyyi gorgolu rek. góorgóorlu rek jàpp te a bàyyi yàlla jàppale ñu ñu mën a am la ñu dimbale suñuy njaboot